asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii nag tey ci Ndoukouk ci dëkk bi nga xam ne nag tey euh, Serigne maam Cheikh Mbaye ibnu Serigne Sambay moom moo fi inauguré tey daara ju mag ji nga xam ni daf ko duppee Serigne sàmbay ngeen gis ko mu nekk nag daara ju yaatu joo xam ne mi ngi nekk ci Ndoukouk waaye bi nekk diggante Ndoukouk ak Tobbi Diop yàlla def nag ñu waat daara ji Serigne sàmbay mu nekk daara joo xam ne gis ngeen ko mi ngi nii tey. Euh, ñu ngi fi tey ànd ak association maître ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw euh, di ko di vérifier. aouzu billahi min asheytaan bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya ah, mbokki soppe man la sëriñ Baye Cheikh Mbaye xalifa sëñ Sam di jégguro ci gëj a dugg gi wala gëj a woote bi damay bañ rek di am influence ci ni ngeen di doxale di jéggulu ci uh, lii fi xew démb wala barki démb ci ngeen ko waroon njëkk yëg ndax uh, gannaaw yàlla yéen a tax mu taxaw waaye li ko sabab mooy uh, dëkk bi mu nekk muy ndu ko ñu bari dañoo génnee seeni dongo ci yeneen seeni doom ci yeneen daara ñaari yooyu rek ñu ngi xaar mu noppi barki dem mu nag ñaari fan ca gannaaw daal ñoo def pressing ci man ndax gone yi bés bu nekk saa yi ñu xëyee suba ñëw ci daara ji wax kañ kañ kañ kañ bu jëmal leen altine rek ci booba ñaari fan a ci des mu laa leen waroon woo waaye dafa fekkoon ma xalaatoon ne damay xaar ba lépp pare bañ koy inauguré ma doog di woote sant xamal leen fi liggéey bi toll tim eh, léeg-léeg da bëgg li nit ñi def leneen ndax sa juróom benn nit ci ñi ma bokkal laa foo woon ngir ñu ñaan fa gannaaw bi xalifa bi joxee ndigal ni moom dana yónni kenn waaye nit ñi bañ ko déggee ñoo ko partage ñoom seen bopp ak seeni délégation sëriñ délégation sëriñ si nga xam ne ñoo yore daara itam def délégation yi ñëw ñi ci des ñëpp mbay lañ sant waa dëkk bi tamit gisee ko noonu xam naa ne ci seen digganteeg yeneen dëkk yi bëgg a wane daal li ñu leen suñu boroom defal te mu jaar ci yéen euh, ñu siiwal ko loolu daal mooy li nga xam ni noonu la demee liggéey bi nag foofu la toll gannaaw bu ñu sante yàlla yéen tam ñu ngi leen di sant ndax ndaw yàlla yéen la di def seen alal bàyyi seen yitte lépp na ngir yàlla moo tax ngeen koy def ndax xam ngeen tiyaaba ji ëllëg mu mel na ni eh, gannaaw gi suñ Modou Gueye sax eh, bokkoon na ci ñi ma bëggoon sax mu teewoo ko waaye eh, dafa wuute bis bi tey jii dafa doog di ñëw pour wane lépp nu mu demee dama ne woon sax xam naa ni fi ngeen toll ndax déglu ko te sëñ Sam ak seen niveau bi ngeen am lépp lu ngeen def jarul sax ñu leen koy kii su ngeen tegee seen bët rek xam ngeen ni loolu mooy Eh, wane seen jëf ñuy jéggalooti nag ndax suñu sañoon yàlla daf ñoo mënawul daal di wax lu bari ci ci ay santaateek yu deme waaye xam nañ ne suñu xol moom du ngeen fi jóg mukk te xam nañ ne yàlla rek moo tax ngeen def di sant nag ñi xam ne ñoo jiite daayira yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp rawatina yéen waa Espagne ak waa Italie ñu di wax di nag eh, liggéey bi daanaka mi ngi doon parce que ma doon xaar sax internat bi pare ñu doog di def communiqué bi naka doon nag gis nga liñ doon wax rek ni dañ ma koy imposé tey rek dugal nañ juróom fukki dongo yu inscrire yoo xam ne ci dëkk boobu lañ jógee ak dëkk bi ko jege ñoom dañuy jàng di wàcc eh, jël nañ ñaari ustaas yoo xam ne ku ci nekk soixante quinze mille lañ lay fay. ndax ñoo leen di jox lekk ak naan ngir ñu tàmbalee liggéey bi ci lépp gannaaw yàlla yéen la kon ñu ngi leen di jaajëfal leen ma saw coono di jéggalu nag xam naa ne yi ci des ci reportage bi da ngeen xam ne mu tëddee ñuy sant ñëpp rek jiiri jaw saam sëñ Abdoulaye Cissé Mohamed Diop saam alaaji baara bu si nga waña ci Italie Sidaati Kebe ak ñeneen damay bañ a lim juum ndax ñëpp ci lañ bokk ñëpp ci lañ bokk ñëpp ci def seen alal waaw yeneen daayira itam seen i njiit ñu ngi leen di sant jërë ngeen jëf wasalaam